السلام عليكم ورحمة الله وحسن الأبرار ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di wax ne moom daal ñu fi doo xam daal lu muy nuru ndax sëriñ bi daal moom yàlla na ko yàlla doole sàmm doole ko aar moom li ko war def na ko yëf yi ñëwee lépp luy matuwaay bu ñuy jël moo ci jiitu raxasu na ñëpp teg seen bët takk na masque ñëpp teg seen bët muy dugg fi mu nekk ñu ngi taxaw yore masque boo yorul masque ñu jox la boo yorul gel tam ñu defal la ci sa loxo ñëpp teg nañ ci seen bët yëkkati na ñaari téeméeri million ñëpp dégg nañ ko joxe na dugub ju bari ñu tàmbalee ko ca sanjaan yi di séddale wut si jumaa ji joxe ceeb bu bari ñu séddale ko fab kër sëñ Tuubaa ga ci iliport jox ko faj fajkat yi te ko ci seen lox hôpitaux yi muy togg ay ñam di fa yóbbu malade yi muy wut ay xéewal di leen wutu ci seen njaboot ay kaamil budul benn budul ñaar jàngalu xasida ak ay ñaan budul benn budul ñaar soññee tam ci ñu moytu budul benn budul ñaar santaane woon ne mbooloo mi dem ci jumaa ji mbooloo mbooloo buñ matee fukk ak ñaar rek mën nañu jule ajjuma ñi des xam ne am nañu ngànt moom daal lu mat def daal def na ko daal dëgg yàlla te te mbir mi du Tuubaa dong de gis nga Sénégal ci boppam ñëw neexut a teg ci yoon te te gis ngeen sëñ Mountakha am na jamono mboolem daayir yi ñëw yépp dañ leen a toogloo te wax dëgg yàlla mbooloo mu ñëw andi seen seenu ñaq bëgg la koo jox nga nga leen jéggal naa leen ndax bëgg kenn ku ne toog këram ñu mën a sàmm mën a mucc tax nga ne leen jéggal naa leen te leer leen bu ñëwee dañ lay jox ah te bu doon koo xam ne séedu ci dara. moom fa muy toog kenn du agsi ci moom waaye kon ñoom ñii ñëw ñooy jaxasoo ñooy loru waaye bëggul ñu loru euh, koo xam ne douze mois sur sur douze ay daayira dañuy ñëw waaye daal sénégalais daal moo naqaree moo naqaree moo naqaree saytu daal wax dëgg yàlla ku lay wammat fa la fa mu la jëmee gën fu fa la jëlee te nangoo koo déglu nangoo topp ci gannaawam daal kenn xamul lu mu doon